kon nag ñu jël kàddu jox ko alxaaji imam Moussa te ñun ñëpp ñu déglu ko namm nañ ko li alxaaji Idrissa wax ndax ay waxam fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin leer la mag mu yaru la waaw eh, kabir kan moo daan wax imam Moussa dafa yaru ba mu ëpp am na yoo xam ne nag duma ko nettali waaw bismillaahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala qiblati al arwaaxi sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbi wa man tabiahum bi imaanin wa ihsaanin ila yowmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu xam naa ni lu ñuy wax sax amatul de Chérif ak mbaaxam fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiina fi mu tàmbalee ak li ci xaaji Idrissa mu baax mi teg doy na sëkk mu ne su teg leneen di ko dollee ndokkeel rek bi may dugg si la ma naan ah, bég naa de ndax ñoo nuroo jàlla bi wallaay ndeysaan <laughs> ma ne ko alhamdulilah ci loolu wallaay sama bos Cheikh Alxaaji Omar Ka mm-hmm. ku ko dégg da defe defee ni góor la mm-hmm. waaye jigéen la ba mu demee Fès mm-hmm. la mu ko indil ba muy jël werd ñëw wax ma ko moo yóbbu ko ca Serigne Cheikh Rëlle ma wax ko Baye Omar Samb yal na ko yàlla dolli leer amiin yàlla ma ne ko dafa bëgg sëriñ bi jox ko wert ma ne ko mi ngi tudd Cheikh El Hadj Omar Ka jigéen la waaye baayam Cheikh El Hadj Omar la ko tudde Baye Omar ni bërët kii moo baax bàyyi di lox nag am kan yaa baax bàyyi ndeysaan sëriñ nag ñaare buy joxe werd danga koy yónnee sa kurus mu jox la ci werd fi ma xamee ni ndakati ci kurus lay joxe werd sañ na ko mën na ko ku baax ku ñuy wax daam njaay ca Gàmbi chaque année waa Gàmbi bu ñu gàmmusee bala ñoo dellu nee na dañuy dem relais wax Baye Omar na ko waxal Serigne Cheikh ni ko ñu ngi koy ziar yónnee ko seen ziar mu yónnee leen ñaan ñu sog a dem daam nee na man maa ngi amoon yéene Serigne Cheikh jox ma werd waaye nee na gisuma ko gisuma ko ba maa ngi ko mujj jële ci Chérif Abdul Muttalib doomu Chérif Mouhamadul Habib nee na moom a mujj jox werd nee na ñu teg ca fan yu néew gàmmu gi ñëw nee na ñu def nañu daan def nee na bàyyi wax ko ni ko am na ñu bëgg a jël werd fii de ci wax Gàmbi yi boobu ma ngi ca biir mu ne ko indil ma kurus yi nee na ñu ngi toog di xaar nee na bàyyi ramasse suñu kurus yëpp nee na yóbbu ca biir ba mu yàgg tuuti nee na Baye Omar génn yor kurus yi waaye ma gis mu ber sama bos nee na Baye ñoo ni ku moom bii nee na ma ne ko man la mu ne góor gi nee na am nga werd jël jël nga ko ba noppi hmm? du dëgg daam fa la jóge moom dafa këpp ba fa la doxee gëmeetul sëñ Cheikh bi Cheikh Omar mii dee jël werd ma yóbbu ko ba kurusam dem ca sëriñ Cheikh bàyyi nee na ma ba ma demee wax ko ko mu ni ko nga ni kuy jël werd mu ni ko ah jigéen la de waaye Cheikh Alxaaji Omar la tudd nee na mu ni dënn ba yàgg ni baax na ku mu àndal nee na mu wax ko ne ko man la àndal ma ne bàyyi kon dinaa fi dellusiwaat tombeek kurus gi def diir bi muy def ci moom ma soog ko jël si bàyyi Umar nee na ma ci ëllëg sa Serigne Cheikh daf la yendoo laaj man la doon laaj ndax ñëw naa wala ñëwaguma ndax rek fonk Cheikh Al ba ca gannaaw ëllëg sama dem bàyyi ni ma démb yépp góor gi mi ngi laaj ndax ñëw nga wala ñëwagoo ba dafa ma mujj jox këris kurus gi xam naa ne ma fa demoon bés booba danaa ko gis. wallaahi wallaahi wallaahi. mu ni ko neel Cheikh Al Umar jox naa ko werd bi mooy cheikhu mii. Mhm. Baye Omar fu ma ko ma sunuyoo mun ma ana Cheikh Omar man ne ko ma nga fa a baax bàyyi. wax na moo ko tànnal tur. te Serigne Cheikh dafa sopp Cheikh Al Hadj Omar. radiyallahu taala anhu yaa ngi fàttali conférence su ca bi ba ca Kaolack yoon woowa nee na Cheikh Al Hadj Omar laa ko tudde <laughs> defe naa sëñ Pape Malick nee na dama ñëw fekk ko mu toog sëñ Pape Malick di ko nettali gént gu mu gént mook Cheikh Omar defe naa yu noonu la mm. mu ne ko moom laa nekkaloon léegi fuuti waaw gis nga boo ko waxee. Hmm. la seen xol di seet. maa la ko wax day mel ni glace goo dugal ci xol yëpp. wallaay wallaay non lu yéeme la. Hmm? kenn du futi mukk euh, am na lu ma ci mën a nettali ci moom Cheikh Al Hadj Umar Al Fuuti radiyallahu taala anhu euh, xam nga Seydi El Hadj Malick alayhi ridal Malick hmm. ku jël werd te bokk ci lu mu jabooteek moom silsila silsilaam bi buy ci Cheikh Umar fa la lay joxe moom la lay joxe wallaay man bokk naa ci li Serigne Cheikh mujj jox lijaasa wuyu ji boroomam Xaaji Malik si sa jinge la woolu ne ko demal ma ci sëriñ Abdoul Aziz nee ko formilu lijaasa yi fi sëñ Babacar si bàyyi na ma ci bindal ñett te na ma ci defal cachet wu sëjël Hadj Malick ak bu sëñ Babacar waaye turu seen borom bu mu fa def tur demal defal ma ñett yooyu boo ñëwee ma wax la ñi ko moom def ci seen tur xaj hmm. Malick si dama jekk jékki mu téléphone ni ma ah, am naa sa yóbbante boo fi mënee ñëw ma dagg lépp dem mu wax ma ko nii mu ne ma nag ba ma ko yóbbulee lijaasa bii sa tur la ci def ngi nii bii Oustaz Lamine Gueye ca Tëngéej hmm. moo koy woyal hmm. ba ca des Haji Cheikh Tidiane Niang bu Alaaji Tidiane Niang ñun ñii la mujj jox lijaasa mën naa wax loolu. mooy ñëw fii. Hmm? mooy ñëw fii aj daanaka lu toog ñetti aj boobu ah, turandoom bi turandoom waaw turandoom moom parce que cheikh bee defe naa ñaari cheikh la ñaari cheikh laa jëti jaan ña am ñaari cheikh la am mu ngoog bi yàlla tuddee Serigne Cheikh bale mu tuddee ko Cheikh na Tidiane mu ngoog Mm-hmm. que waaw waaw mm-hmm. journal aca bismillah mm-hmm. ci ñu ñu mujj jox lijaasa ci la bokk silsilaam bi mu jaarale ci Cheikh Alxaaji Umar al Fuuti radiyallahu taala anhu fa la léppi Maodo jaar waaw mu an cheikhihi wa walidihi wa sajidihi mawlana bakrin si wa an cheikhihi wa walidihi wa sidi alxaaji malik wa an cheikhihi wa xaalihi wa sidi alfahima yoro mais bu ñëwee ba ci cheikhul omar ci lijaasa bi day gis niñ ciy tagge cheikhu omar wa an chamsi zahirati wal badri lan wali taajil arifin alxaaji omar alfuuti <laughs> sokni wa an alxalifati al akbar walwaliyi sharif al ashari sayyidi zil maqaami al ali muhammadin al ghali ni nag wa an al kibriti al ahmar jëlate tagg ba walxatmi al abar alxutbi al maktum sayyidi zil maqaami al maalum bayn al qaasi wa daani sayyidina wa wasilatina ila rabbina ahmad ibnu muhammad ibnu salim al tijaani moo mën a wax de sëñ Babacar hmm? yàlla dogal bi ma toogee sëñ Mouhamadul Moustapha sunu responsable moral. Hmm. nijaayu yu shérif mii. wallaay nijaay yu shérif la. wallaay wallaay euh, soxna Zeynab bu juuf mi yaayu shérif. Hmm. soxna Saaba Dem. Hmm. ma jur soxna bu Juuf moomu mm-hmm. moo soxna Sufiyatu dem ñoo bokk benn bàyyi alaji ama dem jur leen kon kay sa nijaay la pire du dëgg fa tabaarakallah sunul xaaliqiin ma won ko ko mu ni ma maa ko daan bindal yii moom sëñ Abdou ca Tiwaawan mu ni ma firnde la buy wane ni fa la jóge ndax nii laa ko daan binde ma dem Tivaouane aussi yóbbaale ku ci sëñ Abdoul Aziz mu xool ko ni ma fii la jóge de wér na <laughs> ma waxtaan ceeg sunu yaay ju baax ji ñu dese muy yaay da dem yàlla na ko yàlla dolli wér ak i wér li mu ni ma waroon nga ko jot bu yàgg de waaw moom na xam nga moom maamu shérif waaw wallaay <laughs> maamu shérif mu mu daf ma naan shérif moom waa kër maam jëreet mu ne ma ñooñu laa koy xoole waa rek <laughs> su ma fa demee lu ne la may yëg <laughs> ndeysaan pour wan la noonu ñu mel mm-hmm. ci Mawlana Cheikh Hadji Omar Al Fouti radiyallahu anhu li tax ma ne mën naa ci nettali dara waaw li may wax ni shérif xam na ci dara mm-hmm. toog naa ca amosis bi maam ab du demee radiyallahu anhu ba mu xaw a yàgg a diir genn góoru tukulóor ni jameet sama kër ca siis nuyoo jàmm sante mu nga sol ni yére yu xaw a sonn ma jóg ko dalal ko ni ko tur wi mu ne ma maanaa alxaaji omar alfuuti yu ma ni ko ah mu ne ma man la de mu ni dama jóge xaw ma ban dëkk la waxati xëj na dina ñëw doon jaar si alxaaji abdul aziz waaye nag mu ngay jooy nag bi mu tuddee alxaaj Abdul Aziz ne mu ngay jooy weddi xam noonu ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan ba waxtu julli jot tisbaar fekk añ nañu ba noppi ma ne ko nan julli jiiteel mais julli gu jaaree noonu yoon rukkoo yu mat ya sujjóot yu mat ya baal ma du yéen a bokk añ ñoo bokk añ li may wax ne deewul ku dee du añ <laughs> ñoo bokk añ de ku dee du añ loolu rek laa leen di jox comme misaal seexu na tiijaan yi bu la feeñu woon léegi yàqasatan toog ak yow boo tegee boolu añ du añ allahu akbar kii de moom ñoo bokk añ waaye nee na ma man a xaaj alxaaji Omar man la ma ne ko ah mu ne man la ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan li ma xam bariwul waaye fu ma ko laal i ixaataak yu ne mu génn ca yoo xam ni muy euh, pare nag pour dem mu wax sama soxna xaw ma ndax dem nam déet ni ko mm-hmm. est-ce que ama yoo ndigg buy metti mu ne ko ah yàgg na lool man mu ne jeex na. daa ilaaha ko jeex na. dootu la dalati. jeex na am ba léegi jàmbatatu ko. ni ma pareel ma dara nga jox ma hàddiya ma génne la ma am nit kër gi génne leen yéen ñu génne mu ni ma defal ma ko ci mouchoir nga fas ko ma ne ko xaaral ma jëndi mouchoir ci boutique mu ni ma déedéet sa poche mouchoir mi ngi ci ma làmb sama poos seet seet gisuma ci mouchoir ma ne ko may ma rek ma daw ci boutique mu ne ma hee yaa dëgër bopp sa poche mouchoir mi ngi ci ma ne ko man seet naa poche gisuma ci mouchoir mun ma mu ngi ci biir ma làmb làmb seet gisuma mouchoir ma ne ko ma fipp ni ko même rek ma daw jëndi musuwaar mu ne ma hee yaa dëgër bopp ma dem jëndi musuwaar defal ko ko ci ëmbal ko ko ci ni ko aw léegi mu ne ma maa ngi dem ma man ko kañ gi fi dellu si mu ne ma ngénte la. ngénte la waaw. ngénte la mm-hmm. mu ni. sama soxna bàyyil xel sa doom bi bu jigéen bi aasi lay wax kat na am doom boo xam dina am turu kilifa bu mag incha allah kilifa lay doon <laughs> te booba xalaatuma sax maye asi booba gën na fee nekk jamonoy dem di dem di dem di dem ba niñ ko maye shérif jamonoy dem ba aasi am doom bu góor keroog ñëpp fa teew ñëpp ci yéen moom la sëñ Mor doon nettali léegi ah, ah mu ngoog ba waaw te tudd ma waaw tudd ma sëñ koy nettali léegi mhm. Mhm. sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si yebal Baye Omar Samb ah, ba noppi sëñ Cheikh jox aasi xaalis bu takku ni ko nag bu ko teg ci benn loxo bu dul bu aasi ah, waaw fitna lool Baye Omar ñëw fekk AC nga dem xamoo fan doon fii mu ne ko ah salon mu ngoog ma ni Baye Omar jox ko yaay mu ni déedéet sëriñ bi daf ma ni loxo sa loxo ak loxo aasi ne ko comme dama doon jamaale waa ji jàmm léegi kay sa sa loxo ak loxoom noonu lu ko Baye Omar waxee ñu jël bulletin de naissance joxaale ko Baye Niass mm-hmm. mais bi ma ko ne kañ nga fiy dellu si mu ni ma ngénte la ngénte la dinaa ñëwaat ma ban ngénte la góor gi di wax gunge ko mu dem ñu toog tuuti ay fan lañ ca teg est-ce que mat na sax ay weer pend taal pend saar bi nekk kër El Hadj Siré am doom bu góor mm. keroog bés ba Thierno Seydou nuur bu Thierno Mountaga moo tudd si ba ñu ba mu sëggee tudd ñu yëkkati ni Cheikh Alhaaj Umar lañ ko tudde ngénte la laay ñëwaat ca laa nettalee lii Thierno Seydou Nour mu ne ma dinay def yu mel noonu nag ca ngénte la laa ko ko nettalee ñépp a ngi toog mu ne ma ah dinay def yu mel noonu de fa tabaarakallaahu axsanul xaaliqiina kon bu la yàlla booleeg sëtam bii ni mu la booleeg moom li xaaji Idrissa seede ni bëgg nga ko lool waaye moom it mu bëgg la lool it. te xam nga dañu ni bëgg yàlla. neex na de xam nga ku yàlla ku yàlla may nga bëgg ko may na lu lu rëy mm-hmm. nga sopp yàlla ci sa xol mm-hmm. may na lu rëy wallaay waaye bëgg yàlla li muy neex neex neex neex am na lu ko dàq mooy yàlla bëgg la mm-hmm. waaw bëgg yàlla li muy neex neex mooy yàlla bëgg la nitu yàlla it noonu mm-hmm. nga bëgg ko li muy neex neex neex ndakati mooy mu bëggal la boppam hmm? Hmm? loolu leneen la mm-hmm. loolu leneen la waaye mm-hmm. yow shérif alxaaji ibrahim shérif maa ngi koy wax waa Dabakh TV ci interview bi ñu man leen si day fàtte ne sax alxaaji la. ma ñu leen tallu ko ndax ba mu jógee màkk dafa ñëw teg bagage am doxi soxlaam xaarul ko ko ziar si yëpp. waaye euh, fii ku fi toog. Hmm. insha allahu ta'ala. Hmm. loo fi ñaan yàlla dana ko nangu. xam nga lu tax ma wax ko. Mm. matal kóllëre gu rafet gi nga fi def. Chérif boo jubati woon. Mm. fii ku fi ñëw ne neen lay demee nu dul nii. ndax lu ne ngi am di ame nu ne. wallaay wallaay wallaay wallaay mm-hmm. am déet. wallaay wallaay waaye fii ñu la mayee faama yal na ko yàlla dolli leer. nga denc ko fii. Mm-hmm. ba xëyu ko jébbal boroomam. Mm-hmm. gannaawam nga fexe ba këram nekk di zawiya boo jubadi woon ku gis bii liggéey xam ne leneen lay demee. wallaay wallaay wallaay wallaay hmm, waaw kay gis nga googu kóllëre. Hmm. te yàlla dafa fonk kóllëre. léegi la ko sëñ Mor di wax. kon nag mu ngoog. kóllëre kóllëre googu. Hmm. nga nga nga nga nii fii. faama di dégg allahu akbar suba ngoon di déggi wazifaaki xadaratul juma yiw di ko fekki fa mu tëdd de bég na mu tëdd bég na te lu mel nii ku ko am jël lu mel nii mane ne ku ko amoon sa gannaaw jël laa wax dëgg faama yàlla jël na ko yóbbu na ko nga wax ak moom fa mu ne ni ko sa kër gi di soppil naa la ko kër yàlla wallaahi sa kër gi de soppil naa la ko kër yàlla wa anna al masajida lillaahi faama lu mu mënoon a am lii moo ko ko dàqal. mag ñi dañu nettali ña fekke mm-hmm. ni sunu maam maam Roqaya Njaay mm-hmm. radiyallahu taala anha mm-hmm. bokk na ca la ko Seydi Xaaji joxoon loo xam ne ca yooyee jamono ña gënoon a riche amuñu ko ñu gënoon a riche amuñu ko mu jëlaat lépp dellowaat ko Sidil Hadji Malick ni ko bi ci des mooy comme lew na ma te Maodo moo béy ba daj dajale la mu am ca mbéy ma mu jox ko maam Roqe yi mu ne ko ndax lew na ma mu ne ko doom lew na ma mu ne ko doom sama ñaq la lew na ma mu ne ko doom sama ñaq la masalan bu doon ñetti téeméer bu doon loolu mu ne ko kon téeméer bu njëkk bi jox naa la ko hadiya téeméeru ñaareel bi ci daara nga nekk di sëriñ daara maa ko wàllisee ci daara ji téeméeru ñetteel bi ñaanal ma ci doom yàlla may ma doom bu mel ni yow allahu akbar delloowaat ko lépp ñu ko nag léegi li ci des sama njëkke laa bëgg a teral wax ma kuy sama njëkkee ma teral ko kuy sama njëkke nee na sëjil xaajamal ni ko yàlla mooy sa njëkke ah waaw yaa quratay aynina tuuba ilallahi ah mu ne ko yàlla mooy sa njëkki mu ne ko kon nag ba pàkk bële maa ko moom mhm. doon na ko ci sama wayjur jox naa ko sama njëkki muy zawiye bee ca ndar muy zawiye bee ca ndar di dégg yàlla subaak ngoon Chérif li tax ma ni fii lu fi waay ñaan mu nangu mhm. matal kóllëre gi moo rafet fa tabaarakallah sunul xaaliqin matal gi kóllëre fii mhm. moo rafet dafa rafet fa tabaarakallah sunul xaaliqin di la ndokkeel it ci tur wi jib tey sa cofeel ci xusari radiallahu taala boo ko doon firi da nga sa cofeel la ci alquran waaw kañ mhm. du dëgg piir nag jeex na loolay wax bi nga bëgg ci sa xol jamono yu yàgg boo daan ñëw kër ga yaa ngi ak sa magnétophone bu ndaw ba mhm. waaw booy moom ngay moom ngay doxaale booba dangay ngay doxee amukaat ba fële ak sa tànk di déglu rek alxuraan ba ëgsi suñ lay gunge tamit noonu doo tàggoog xusar yi ci alxuraanul karim kon sa bëgg alxuraan mm-hmm. tabaarakallah asnul xaaliqiin moom nga delloo tey xusar yi njukkal mm-hmm. delloo ko mbàttu candaa la Mm-hmm. cofeel googu nag mm-hmm. yàlla na la ko yàlla nangul amiin di jaahi sayyidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam te moom moomu mm. amee tur wow ndax alquran mm. yàlla na bal barke alquran wàcc ci moom amiin amiin te yàlla boole ko kook mm-hmm. ñi mu bokkal ñépp nag. amiin amiin ak bépp jullit. waaw. waaw. waaye yi fi jib yëpp. témoignage yeeg wax ji yépp tudde doom xusari gi. gàmmu 31 bi. xadara bii am tey. at mu jot mu am yëpp boo ko dajalee. benn baat rekk lay doon mooy bëgg yàlla. wallaay dëgg dëgg yàlla. Mhm. Mhm. Mhm. du leneen. mais ki bëgg yàlla. xam nga ni gëm na yàlla. bëgg alxuraan geek bëgg xadaratu jumaa geek bëgg gàmmu geek bëgg yonanti beek. bëgg Cheikh Al Ahmed Tijani ak Cheikh Ahmed Tijani bëgg Cheikh Al Hadj Omar gi ak bëgg Sëjil Hadj Malick gi yëpp bëgg yàlla rek. wallaay wallaay gi dëgg la de. bëgg yàlla rek. dama mas a wax ci waxi wolof. Hmm. te la ma inspiré bokk na ca. la boroom xam-xam ba waxoon ni les gens savent bien que je suis amoureux mmh. seulement ils ne savent pas de qui mu ñu les gens hmm. les gens savent bien que je suis amoureux seulement ils ne savent pas de qui ca yàlla la moo tax ma ni ki bëgg yàlla na toog ko mu bëgg bëggul ki mu bëgg dafa bëgg ku mu yëgagul ni moom la bëgg mooy suñu ci ku bëgg ku ne bëggoo ki nga bëgg bëggoo li nga bëgg mm-hmm. bëggoo it fi nga bëgg mais danga bëgg koo yëgagul ni moom nga bëgg mm-hmm. yi ci des yépp làmbaatu la te kiy làmbaatu dajagul mais ku daj taxaw taxaw taxaw waaw hmm? te daj dëpp gi du kenn ku dul mawlaana tabaraka wa taala maa daj dëpp gi du kenn ku dul moom mii di moolaana tabaraka wa taala moom la jaamam yi sopp xamoo cofeel goo am ci ñitu yàlla ba amatoo ci moom sago xam nga lu ko waral jëmme yàlla gi lay xeeñ ci moom laa ilaaha dëgg la <laughs> ah? du leneen loolu maa ngi ko dégg maa ngi ko ah? dégg yee ca rañaanu ci bi bu muy ñëw ci yàlla Moussa mu naan ko dellul ah. yàlla jono xëy ca moom mu ngoog <laughs> loolu la Moussa mënul woon supporter wallaay wallaay ndeysaan ah. maanaam dellu rek janook moom boo ñëwee ma xoolaat la loolu rek la woon wallaay <laughs> dellul gi yëpp loolu la woon hmm. moo tax li nga wax léegi ni sëñ Babacar radiyallahu taala anhu moo ko daan wax am ko te xamoo ko na ñàkk ko te xam koo ko gën ndax boo ko ñàkkee te xam ko dana la jaral lu ne ci nga am ko waaye boo ko amee te xamoo ko mën nga ko sàggane ba ñàkk ko hmm? Hmm, hmm. loolu moo ñu boole yi nu am moo ñu booleeg tant bi di tàlli fii le 31 incha allahu taala wax naa ko léegi nga lawaay kuy ñëw na nga sóoraale teewlu boo toogee teewaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ Cheikh lu mu wax ma gëm ko wax yàlla moo am nee fu ñu ko tàntale mu jaar fa noonu lu ko waxe woon de waaw ah. ca Tiwaawan mu ni jaar na fi léegi yóbbante naa ko sax <laughs> ah. mu ngo mu ne Cheikh moom laa yóbbante yonent kay ñu du du fa yàgg nag day jaar rek dem waaye ñuy teewlu président sallallahu alayhi wa sallam moo tax barzaqul baraziq taajul aarifina sultaanul awliya yàlla rek nu ko mën a fay cheikh mm. abul abbas ak ponkalam yi ko dar ponkalam yi ko dar nga xam ni ku ne mënoon ngaa beroog sa tarixa ay ponkal rekk ko Serigne Cheikh laa dégg mu ni jël benn avocat mu ni jël ligue bi moo ko gën a gaaw jël moo ko gën a gaaw te ay ponkal rek la Cheikh dajal ki leen du présenté fii yépp tey ponkal yooyu di sa góor gi Cheikh Thierno Mouhamadul Bachir wallaay Cheikh <laughs> xam nga Thierno Bachir maa ngi koy wax ci waa ak ak waa Dabakh TV ni leen man li ma marqué ci Thierno Bachir te xaw ma ndax ni ma dale noonu la dale ñu ba ren déet Thierno mënuma ko ne jàkk te xalaatuma suñ Babacar Si dëgg la ñoo niroo xaal ah, ah? ah. ah? googu wallaahi hmm? xaalu sëñ Babacar ah, ak xayba bi man bu ma ko ne jàkk sëñ Babacar si lay xalaat hmm? ak fayda ak ak ah, hmm? fayda ji wallaay ndeysaan ak fayda ji hmm? ponkal yooyu Cheikh dajale radiyallahu taala anhu nga gis fi mu ñu teg xam nga dañu ni àdduna ñaari gaal rekk ñoo koste ci waaxu àdduna ñoo bokk fu ñuy déparé nag waaye bokkuñu fu ñuy teere mm-hmm. gaal gu jikk gi mooy taatullah yàlla na fi yàlla dugal amiin yaa rabbi gaal gu ñaareel mooy maasiyatullah yàlla na ci yàlla musal gis nga gaalu topp yàlla gi di taatullah yonent yàlla Muhammad na ca kanam ñoo bokk nag fu ñuy déparé gis nga maasiyatullah iblis moo na ca kanam ñoo bokk fu ñuy déparé waaye bokkuñu fu ñuy teere Sigil yu Malick si alayhi ridaal Malick dafa wax ni hmm. bokk na ci ni ngay waajal sa doom hmm. bokk na ci bul ko tere bàkkaar hmm. bul ko tere bàkkaar waaw boo ko ko teree foog xel ma liggéey yàlla ba mu nammee génne aadama aljanna daf ko tere garab ga wala taqraba hadihi shajara mm-hmm. tudd ga mu tudd garab ga mu dañ ko kumpa booba namm na koo génne waaw moo tax mu ni sa doom Haji ni bu ko teree bàkkaar da da da da da koy tënk ci programme boo xam ni du ko tal mm-hmm. wallaay waaw hmm? gis nga foofu lañu seex tënk